merci merci camarades de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr doit être fier de vous merci mais Abdoulaye très franchement waa Yoff mënoo leen fay li ma fi gis tey de mémoire kanam yoof won ngeen ni Abdoulaye Diouf Sarr ngeen yaakaar won ngeen ni Abdoulaye Diouf Sarr ngeen bëgg won ngeen Macky Sall vous êtes sur son choix li ci des moo ñu yeggali ko le 23 Abdoulaye xam nga bi ñuy ñëw léegi xale yi dañu ne match bi jeex na. ma xalaat nag dañu ko see xam ay gars yoo xam ni. tant que arbitre bi sifflé wul. dañu nekk ci compétition bi. on ne peut pas perdre une seule voix. Cela veut dire ba dimanche ci 18 heures le travail doit continuer. Pour que la victoire soit sans embâche, pour que la victoire ne soit même pas discutée et que urne yi buñ ko génnee ubbi ko ci journée bi ñu constaté ci poubelle bi bari na lool yeneen yeneen man nag picc yi du ma gis fas di jël picc dëgg dëgg nag xaw ma la xaw ma pitax la xaw ma ceeli la waaye daal fas la ma gën a merci merci que le travail continue vendredi vendredi bu ci yàlla Abdoulaye Diouf Sarr va organiser un grand meeting. meeting boobu dañoo bëgg mu doon un meeting exceptionnel. ñun ñëpp 19 communes yi bés boobu nag war nañoo def classement. war nañoo def classement. ñu ngi koy defee ci arrondissement bu Parcelles Assainies. bañ nañ ko ba arrondissement bu Parcelles Assainies la tudd kon nag. xam ngeen li ngeen sant ngeen def ko. waaye waaye yoo xam ma gis nag jafe na ñoo duma. waaye bés boobu il faut que les ba je vous remercie. <laughs>